jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy waxee saa su ne sëñ Bas ki démb dafa am wax ju am solo bu mu wax ba ñu nekkee fële ca Mbour mu ne ma jiili ma ne ko naam mu ne ma est-ce que xam nga ni làmb mbëru parcelle yi ñu ngi ci def wàll bu mucc ayib ma ne ko lu tax nga wax ko mu ne ma parce que roi des arènes bi moo nekk parcelle looloo waral ñu seet si kenn koo xamante ni dañ ko daan gis ci làmb lit simple yi muy ñëw di def ay preuve am yu baree bare ci làmb waaye ba saison bu ubbee ba tey gisuñu ko xamuñu ci lu mu nekk xaw ma combat yi ci moom la xaw ma mbër yeey daw xaw ma promoteur yeey daw xaw ma qu'est-ce muy Oninga bu parcelle mbooloo ba ma koy xam de parcelle mbooloo la nekk Oninga maa ngi maa lay bëggee ji lii ba ma sant yàlla julli ci yéen sama ñaari waajur maa ngi bëggee waa axlu làmb yëpp waa di ñuy sama gaay yi ma àndal Modou Wade Fallou Leye di béggee waa gaale bi ñoom taxa Adama Lo gaa yëpp ñoom papa ah. waa di gërëm sama papa di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax a baax waa di nuyu sama waa dëkk parcelle fii ma dëkk interdis maa ngi bëggee ñëpp di nuyu sama grand Moussa Diom aussi waa di ko bëggee bu baax a baax a baax nuyu sama waa dëkk Ndengale sama dëkk yaay faajaal ñëpp waa Sandiar maa ngi ñëpp daal oui. nga dugg ci làmb. waa làmb maa ngi ko commencé fooye ay 2008 ay 2008 2007 2008 daal laa commencé di dem ci école yi fekk gars yi di bëre ñoo Moussa Dioum di entraîner ma nekk seen biir di di foontu ba yàlla def daal laa ñuy tëgg fii ay tournoi affaire yoonu interset fii parcelle ma ciy bëre waa macha allah daal yàlla di ma ci dimbale ma doon booy bu ndaw mais poids bu ñu teg samay morom maa koy jël. Hmm. lan moo la ci dugal. non amul rek parce que làmb moom ku ne séeréer xam nga ne moom waaw mooy loolu. màgg gis gars yi di bëre fii ñoom du nekk fii di bëre ñoom Moussa Dioum ñu nekk seen biir dem ba làmb dugg suñu xama suñu deret ñu gis ñuy def lu rafet man maa ngi doon jàng tër après ci laay saacantu di dem di seetaan entraînement ñu may tere di ma ci dóor affaire yooyu noonu. loolu daal moo ma dugal ci làmb mais làmb nag dama judd rek mun ko quoi bëre moom dama mudd dama judd rek mun ko. Ah. ban tailleur doon def simple wala sooy. simple sooy lépp waaw. mun nga yàgg na 217 laa gën a mën ni simple sax. billaahi. damay ñëw yëre jigéen wala ñëw góor. damay ñëw yëre jigéen damay ñaw yëre góor lépp laay ñaw su ma toogee entraîné ba kii su ma sonnul dëgg damay dem atelier dem dóor naas waaw. ba nii nii yaa ngi ci wala bàyyi. ba nii nii damay dem atelier di dóor parce que làmb dëgg la sport la mais da nga koy booleek métier quoi waaw damay dóor nii ba léegi mais des fois nag temps bi day laaj nga dem boo jógee entraînement xaw a tuuti gars yi dañ may may loolu. waa di leen sant bu baax di nuyu sama booy yu fa nekk ñoom Alsaan ñoom Malick gars yëpp ñoom Xaadim Seen gaa yëpp daal waa Massé Gueule Tapée yëpp sama fan si club bu nekk foofu maa ngi bëgg ñëpp ñoom Xaadim loo Cheikh Fall xam nga gaa yëpp daal ñoom Sëru Mbay gaa yëpp ñoom saam Jon sama grand bu baax a baax yee maa ngi bëggee ñoom ñëpp daal waaw su ma limee damay juum ñoom Njaga xama nga gaa yëpp daal waa Massé Gueule Tapée yëpp. est-ce que di nga neex a teg table yow doo neex a teg table léegi de. non man léegi. <laughs> non léegi man man léegi patron laa quoi affaire ça waa yee booy ñooy bindanti ma leen di teg taabal mais léegi moom mooy loolu macha allah métier bi moom waaw mokk na bu baax a baax instant yi tër moom li ma ci bëgg a dóor moom dama koy dóor moom waaw ñëw moom li ma ci bëgg door dóor ma koy dóor damay ñëw ne booy waa def leen lii def leen nii dagg yére teg wala ma dagg ñëwal sama bopp affaire yooyu noonu waaw. Hmm. kon li suñu papa yi naan mbër day am métier kon yow wane nga ni mbër daa war a am métier. waa vraiment mbër day am métier parce que sport dafa nekk loo xamante ni mooy loolu. gis nga barki Demba Ndiaye suñu benn ki bokk ci mbër yi Bisil Balde Junior xam nga nekk na ci sport ba yàlla dogal feebar jot ko ci xama ñu koy ñaanal wér ak wér la xama mooy loolu loolu tam lu jar a sóoraale la comprendre nga moo tax mbër. buñ ne daa war a am métier rek raayet waaw mbër daa am war a am métier bu baax a baax en cas dog bu la dagee bu la dawee ci sa carrière nga dem jàpp ci sa métier rek dañ ne doo ko rëccu. Mhm. lan moom lu mu doon lan mooy Oninga. Oh, sa waay am solo nag waaw Oninga dafa nekk euh, benn benn àll. c'est que olof yi ñoo mënul tur bi dëgg mais ndinga la ndinga. waa gars yi di naan Oninga àll boobu mu ngi nekk diggante géej ak njanda xam nga njanda waaw foofu la nekk suñu benn grand moo fa nekkoon antu antu géej moo doon bind Ondinga mbër la woon quoi bu ñëwoon suñ dëkk yi nii bu tombeek ma dem village nii làmb am fa gars yi di njëkkante saak ku nekk naan maay teel kii ci ku nekk naan maay teel kii ci moom muy bind loolu Ondinga àll bu dëgër la basi rek lañ fa mën a bay nag waaw loo fa béy leneen moom doo doo doo am bësi rek. bësi góor a koy bay daal. foofu nag dafa dafa dëgër quoi moo tax ma jël tur boobu indi nga indi nga xama ba tur bi law. waaw. ci ñaata combat arène. ma bëre ci huit combat arène huit combat arène laa bëre dama bëre alliance Pagala bëre ak Pape ndoy ñëw dugg ci arène naa tour bi am ci six combat am benn défaite ak cinq cinq victoire ñëw bëre ak euh, fils de Balla mu daan ma. ñaata kon kon loolu ñaata victoire la ak ñaata défaite. cinq victoire six victoire ak benn ak trois défaite. six trois défaite. Mm. mais yow li nga tudd nii da nga leen daan ñëpp ay ndaanaan nga fi tudd ay champion. waaw gis nga loolu la de làmb léegi moom comme nuñ koy waxee rek làmb léegi dafa am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey tey boo duggee ci écurie ñiy jiite écrit yi wala dara dañuy jékki-jékki jël xool mbër moo xamante ni da leen di neex affaire yooyu ñuy dox ci suuf di leen wutal ay combat yow mi nga xamante ne da ngay nekk ndaanaan ci biir écrit bi sax dàq ñu bëri bëri buñ demee ci émission yi wala dara duñ la fa tudd wala dara mais tey parcelle mbooloo ku ne Moussa Dioum ne Yanda wala nga ne Boy Ndiaye wala ay timtimal indi ngaa nga ciy teg gisuma ku ma ci dàq bëre kon da nga war a yemale ñëpp. bu ñu wutali kii combat tey wutal kii combat ñu bëre loolooy tax tey écrit màgg tey nga mën a dugg ci écrit lim ay turi turi turi loolu mooy waral écrit màgg mais tey boo nee kii mooy mbërum wala kii moo am combat wala kii rek da nga kuma da ngay commencé féewule te du ma la nëbb de suñu écrit dafa am féewule bu bëree bëri bëri moo tax tey booy nu ñu war a mànkoo nii def nii ensemble defuñu ko lépp nag grand yi nekk ci ginnaaw la. di yàq xelu booy affaire yooyu noonu ku nekk daal da nga yëg sa bopp jaar nii dem te loolu day arriéral écrit quoi loolu lu ma naqare la ci écrit bi. loolu bokkul ci loo xamante ne day doxal écrit ndax écrit yaakaar naa bu ngeen fa nekkee képp koo xamante ni moo leen njaboote dafa war a jël ñëpp def leen comme seen doom bopp tey ku am combat bu subaa ñu wutal ka ca des combat Oninga lu waaye gàtt gàtt dégg-dégg wala ku waaye gàtt gàtt gis-gis wala kuy dund làmb xam na ni Oninga def na lu rëy ci làmb bari na ci mbër yoo xamante ni dañuy nekk ci écrit ñu dàq leen fa jëlee leen fa ne ñii duñ doon sampion génne leen ci écrit bi ñu dem ci beneen écrit doon fa ay champion mun naa ci sute ay tur yoo xam ne du jeex ci mbër yoo xamante ni ay champion lañ ci làmb ku tudd benn ñaar tudd leen ñuy ñetteeli mbër ma te fi mu toll nii ci làmb fi ñu toll mooy ñoom ñu ngi ñu ngi def lu jéego bu rëy rëy rëy ci làmb te dañ leen a dàqoon ci écrit écrit moom dafa am loo xamante ni moom moo ko war a defar lan ngay wax ñooñu ñi nga xam ne ñoo jiite écrit bi. parce que tey comme li ma la wax rek njiit moom ndey gi seex nga war a tëddee waa njaaxanaay bul xàmmee ne kii nii moo war a dam doon champion wala kii nii moo war a doon lii parce que lu nit war a doon yàlla suñu borom moo ko xam. tey képp ku fa nekk rek bu nekkee booy bu ndaw ñëw ci écurie bi sax da nga ko war a jox gëddëm li ngay teg ponk li nga teg ko ko parce que yàlla kenn xamul quoi yàlla mooy tege nit lu nekk loolu dañ ci war a bàyyi xel mais suñu père bu baax père sañ moom tànk yooyu mu ngi ciy dox bu baax a baax écurie bi tey fu mu egg rek moo ko fa eggal. da ciy dox guddi ak bëccëg di wutal booy combat man daf may jéem wutal mais man tey sama adversaire sama adversaire yi pour ñu bëreeg Oninga dafa xaw a jafe xaw ma lan la nag. lan dañuy daw wala da ngaa wex wala qu'est-ce qui xam naa du question wex parce que gars yi léegi nañu waxante dëgg gars dañoo bëgg lu yomb. dañuy xool benn lu nooy népp ñëw dem ci promoteur ne nañ ma jox diw affaire yooyu noonu dem fay xaalis ñu lijjantil ko kooku mu écrasé ko dem. loolu moo war a jóge ci làmb ji ñu ñëw ñu bëre suñu biir ndaanaa ni ñëw bëre suñu biir ñu xam kii moo mën ak kii moo mën mais tey da ngay xool koo xamante ni yaa ko ëpp fuuf yaa ko mën fuuf dem fay promoteur ne ko jox ma diw dem mu jox la kooku noonu nga dem bëreeg moom daan ko yóbbuwul la fenn tey boo xoolee làmb ji looloo ci bëri ñi war a bëre dëgg dëgg dëgg bëriwuñ billaay wallaay. su ma la laajoon Oninga kan mooy sa naataangoo ci làmb ndax ku jugee ci fis de Balla fi mu toll nii war nga maa mën wax kan mooy sa naataangoo ci làmb. tey làmb xëj na gars yi tey koo tudd nga mu foog ne da ko da ko pareel. ah koy war a bëreel. mais ban ci ban lubbi nga bokk ci ci ci ci ñan nga bokk. mais tey gars yi wax gis nga ay ñoom ay ñoom kii nu mu tuddati gis nga ay ñoom Mamaya. ay ñoom double moteur ay ñoom nu mu tudd Alioune Seye ñooñ ñëpp gisuma koo xamante ne nii am na qualité yi ma amul tey ci rang boobu noonu laa waroon a ay ñoom gàmmu gay ci rang boobu noonu laa war a bokk buñ bëree tey suba ma bëre billaay wallaay ci ñooñ laa war a bokk mais tey da am combat tey ñu wax la sa moroom nga ne ah kooku noonu tey day dem ci làmb yi mbabat yi day jël lii day jël lii say mbokk ñoo lay njëkk gën a moytuloo loolu moo sooxeel làmb ji samay combat man loolu moo tax mooy loolu parce que Euninga dafa nekk booy boo xamante ne macha allah tur bi da jiitu dafa jiitu jëmmam su ma daje woon ak yow fii léegi nga laaj ma noo tudd may la Euninga rek may naan noo kon yow yaay damay dugg sa tur damay dugg ba Gàmbi fu ne boo ma laajee moo wax la sama tur da may naan kon yow la donc tur bi ni nga koy déggee ak jëmm ji bokkul. mooy loolu. Hmm. tey lan nga gis loo xamante ni war na mën a defar làmb parce que làmb ñii ñu ngi naan dafa toll ci crise ñii ñu ngi naan dee na ñii ngi naan sponsor yi ñëwul te man jàpp naa ne làmb fi mu toll nii pour mu nekk na mu meloon 2010 2011 faw mbër yi defaraat seen toogaay promoteurs yi defaraat seen toogaay média bi xool seen communication bu ñu war a def ci làmb pour làmb mën a nekkaat fa mu nekkoon. awooy ah làmb moom suñu sport la bu dundee ñoo ko war a dundal. bu deyee tey ñoo ko rey muy mbëri muy journaliste bi muy promoteur muy manager bi tey manager yi tey rafetluwuma tey lu ñuy def mooy lan ndaanaan yi lu tax duñ bëre mooy dañuy xool boo yoo xamante ni da ngay am mbooloo rek du question sa qualité bëre ñoo tax ñu tëgal la de mais na nga nekk sa ko nekk fa yow kese ñu bëri topp la affaire yooyu noonu nga ñëw même suñ lay daan ba sans combat sax booy ñëw di ini mbooloo rek dañ lay tëggal donc ñoom dundal dundaluñu làmb ñoom seen poos la ñuy dundal xam nga tey loolu boo xam ne ci lu sooxeel làmb ji tey balaa ngaa bëre da jënd billet ba pare ñu kii la man oni ngaa tey man boo ñëwee seesi ma dama yaag diw yéenay bëre ne la ok ñaar laa lay fay lii nga may fay ñu waxaale bu juboo boo ma joxee ay billet man lu ma jënd ci ay billet sama bopp la ndax parce bëgg naa su ma nee nii ñi ma àndal yëkkati seen loxo te man dama nekk mbër moo xamante ne tey fi ma dëkk nii diis marché Gueule-Tapée Sandiara Fissel Mbadane Mboxodan ah, ci Bambey la bokk Fadial sama dëkkuyaay ñëpp su ma doon bëre waa Mbour ñëpp dañuy ñëw di leen nuyu en passage ah sama papa Samba Seen Ngóor Seen di nuyu waa ñax-ñaxal bu baax baax a baax ah sama grand seex ak soxnaam awa ñoom Khady Sarr xam nga di leen bëggee bu baax baax baax nday faatu ñoom tam dañuy jàpp ci kii bu baax a baax a baax ci supporter bi baax a baax daal dañ ciy jàpp daal nu ma la ko mën a waxee tey ñooñu nëpp tey su ma amoon combat ñëppay mobilisé wu ñëw maa fils de balle tribune bee dama ko duy ba mu fees barki alxuraan dama ko duy ba mu fees ma ñëw yàlla may ma may ma ci defet quoi ma santee ko yàlla bu baax a baax a ba tey sama fan si may naan tey booy jël combat da nga koy xool bu a baax Oninga bu mu dee Oninga ba léegi mu duggee bëre ba léegi mosuma bëre koo xamante nii maa ko ku may bëreel yaa may ëpp fuuf fuuf mais damay ñëw ñaakante ko ak yow tey su may daan du ma daan ci yaa fus wala dara damay wone sama bopp ba ñàkk combat bi wala ma am man loolu laa xam ci bëre donc yu mel noonu dañ leen war di tëggal ñuy bëre tey nga dem indi ay supporters yu bëri lool sa sag la mais pas ne danga nga may fay ba pare ma tëggal la combat. loolu moom mbokk na ci liy yàq làmb mais Oninga li tax niñ la daan gisee ci làmb simple yi ba léegi wàccagoo du Ibamar du arène nationale du du du du Mbour du dara quoi du gaal gi du Adrien Senghor lan moo tax wàccatoo. yee waa làmb simple nag <laughs> dafa nekk loo dafa doy waar benn instant mën naa ne làmb simple xam ma la laaj jëlul nit nit rek laaj jëlul muy permis oto muy xar muy bëy muy nag muy xaalis lu de jël naa ko ci barke alxuraan mais daaw dama ñëw sama saison ma commencé rek def benn choc quoi léegi ma def taj xam nga làmb tey boo nekkee booy seen biir te boo duggee ci biir ponkal li leen jaaxal ku jóg dalay lay sóoraale ku jóg day jóg ci yow mu am nag loo xamante ni dama toog jàngatoon ko ci man saison bi commencé tam ñi nekk samay kilifa ne ma bul bëre. non li nga jàngat da koy wax sook bi lan la ak lan nga jàngat fii moom lépp loo bëgg mu leer da ñëw ci wasaare làmb. yee non daaw daaw dama defoon soog dama doon dem benn làmb def benn accident gaañ ci tànk toog naa six mois presque comprendre nga ma toog ba njeextal saison bi noonu laa ñëw di bëre ci àll bi di bëre ci àll bi li ma dóor fii Dakar sax bëriwul saison bi jeex ren ma toog nekk sama village. xam nga parce que comme li tubaab bi wax il faut reculer pour mieux sauter waaw ma nekk sama village tam di préparer sama bopp ñi nekk samay kilifa tam ne ma ah lii ak lii am na dañuy toog xaar saison bi làmb yi bu mu neex a neex a neex a neex ba mu tax la nga dem toogal ba ñeel ñu ne la demal bëre ji nga dem bëre ji lu yàlla def nga xam ne loolu la mais tey am na mbër foo xamante ne fu muy toll nii am na mbër fu muy toll say kilifa ñoo lay yor ñi ngay toog di dem ci ñoom wala dara ñoom ñoo lay jox ndigal ngay kii mbër mu fi nekk nag mu fi ne laa wax de noon ngay doxe tey gars yëpp ku ciy jël combat da ngay dem xool ba leer la nga door ñëwee la jëlal nga door a jël moo xam nag nga dem ba ci biir mu changé wala nga dem ba ci biir yàlla dogal mu sotti. des di nga jël làmb dem di yëgal say mbokk ak say am di jàmm ñi la war a ñaanal ñu ne làmb ji baax na jëlal nga dem ba ci digg bi ñu ne la oo oh, carte gi tourné na. Uh-huh. loolu lay am. làmb moom mooy loolu affaire jinne la rek làmb affaire jinne la des fois da ngay dem ci làmb ba mu leer la nii nga dem mu soppeeku des fois ñu la ah làmb ji mooy loolu lëndam na génne lii génne lii nga dem yàlla jubal leer yoon bi mu leer naa ñi xam nga tey loolu yëpp dafa bokk ci làmb léegi yow nag dañuy xool ba xam ne yow mii de ci qualité bi nga nekkoon nii ñu xool la physiquement xam ne yow de am na lu nekk ci yow wala am na lu def ci yow wala dara lii moo lay kale bàyyil dindil loolu ba pare door a ñëw parce que tey làmb foll agréé mais kuñ daan nga rus moo tax ñun buñ te man dafa nekk mbër moo xamante ne macha allah man tàmm ma tàmm defet tey suñ ma su ma demee Grand Yoff fee ñu daan ma su ma ñibbisee ci kër yi ma tegee sama ngeem mën naa fa nekk di reer mais su ma tegisee sama ngeem du ma reer dinaa toog di ko xalaat ba fajar jot fajar laa jóg dem entraîné ji daf may métti. te làmb tey senegal ku daanu dangay xaar. boo bëree dem ku daan da ngay dem. boo bëree ay defe nii sax wala dara wala nga toog nii affaire yi neexatul danga nga doon gis ñu la doon jege nii dañ lay bàyyi foofu dem. mën nga toog ba ngoon jot kenn du la ci woo wala sa téléphone sax du sone wala bu sonee yaa woo nit. kon bippee sa bopp di xool ba xam bëgg dox. billaay wallaay loolu mbër rii ko daj di mbër yi ko dund du jeex ci dëkk bi. noonu la fa demee nag moo tax nag loolu noonu. fayatin moo ko mën a jeexal sa jom fula fayda nga xam ne lii nii de ah dal na ma tey ñi ma doon àndal ñu jege ma torop gëma yàlla bàyyi nañ ma gis nañ ku ku fël nii wala kuy neex la dem nañ ci ñoom affaire yooyu noonu nga xam ne lii nii mooy loolu après boo ñëwaatee da ngay xam noo koy gérer. loolu la. làmb yi simple yi di ñëw nañ ci góor la oninga te xam ne dina yegg si. waaw man moom di wax sama gaay rek di jégalu parce que tey man su ma jógee su ma ñëwee tey làmb simple su ma génnee ci bunt bi gars yëpp ku nekk day naan waa mbër lu tax takkoo waa mbër yaa ma fi taxoon a ñëw waa mbër dañ la gëj a gis mais ñëpp mënoo leen expliquer maa ngi ñëw rek ngay wax mais daal ñun làmb simple dafa nekk suñu deret mais dem il faut ñu wàññi ko tuuti pour am fu ñu yeggee ci làmb bëre dóor bi parce que tey mbër mu nekk rek xej na boo duggee ci làmb tey bëre dóor moo tax ngay reyande. kon mbagg boo gis boo xaree xol ba magasin nga cay lu wër lu wër moo tax nag làmb bëre dóor bi il faut ñuy def xam nga tempo tempo pour daal làmb simple bi il faut ñu def tempo tempo pour bëre dóor bi ñu mën a yegg fenn am na yenn gars yoo fu ñu leen di dégg ci. lamb simple bi tey lamb bëre bi tey ñaax mbabat bi moo leen ko waral dañuy naan nag mbabat baax na ci mbër trop baax na mais day nekk mbër moo xamante ne nii amul yenn qualité bëre yi mais tey man quatre-vingt-dix mille kele man yor naa ko. yow mi barki alxuraan tey lu mbër di bëre te indi ngaa du ko bëre gisuma ko lu ñëw sama xel dama koy def te su ma ko defee day réussir mën naa dem ci làmb nag tey mu neex mu la mu ñàkk neex. mais mën naa ne samay moroom gisuma koo xamante nii mën naa taxaw la ci bëre amul. ana Modou Lo. Modou ah foog naa mu ngi fi de mu fi xaw ma <laughs> xaw ma dem na. diggante ak nu mu mel. ah waaw sama diggante ak wax dëgg fa yàlla jàmm rek. yaa wala ma wax boo <laughs> sama diggante moom Modou sama grand la sama lëpp la tey bi may door a fii ñu bari raxu Modou Lo lañ doon wax. indi ngaa raqu Modou Lo bi raqu Modou nekk fii di jël mbapatu parcelles yi fii raqu Modou Lo raqu su ma daanee combat arène ba pare su ma kee lu ñuy gisee bariwul parce que xëj na jot jotam du ma ko du ko ko may man sama jot du ma ko ko may yenn saa nag ñu daje xam ma ku nekk tam da ngay nuyu sa moroom xam ma yaa ma gën a xam <laughs> waaw. dama ko doon napp rek dara xewul ci diggante ak Modou Lo waaye des fois nga wax mbër dara gis réaction am nga napp ko rek xool xam nga ak wasaare làmb léppay leer xanaa ñu bàyyi la ñu tàggatoo rek ndax waxtu bi ñu amoon jot na. waa di tàggatoo waa xanaa di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di gërëm sama gaay yi Modou Wade Fallou lay di gërëm sama benn booy xës di ko béggee bu baax a baax ah di gërëm sama waa dëkk leer sama dëkku yaay faajaal di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax a baax ah, di gërëm ñoom taxaaloo ñoom aadama ñoom papa ñëpp ah di leen bëggee bu baax a baax di gërëm sama bàjjan boo xamante ne nag ah lu ma soxla su ma demee daf ma koy jox muy koddu seen ak borom këram Songa Fay ñoom Ibu Omar waa kër gi ñoom nday Marème ñëpp maa leen di bëggee bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax sama waa kër yaay faajaal maa leen di bëggee di bëggee sama gars yi nekk asilem yëpp ñoom Ablaye Diop ñoom Émile gars yooyu itam xam mooy loolu dama fay dem des fois affaire day tar ma dem fa xam nga mooy loolu. di gërëm nag sama doomu ndey nga xamante ni mu jàppee ba léegi bàyyiwul ndëri billaahi borom baax a nekk noonu bu mu jàppee ba léegi bàyyiwul dama koy bëggee bu baax di wax sama fans club bi nag xool waa Massé Gueule Tapée nañ gën taxu bu baax te xam ne sawaay muy ñëwaat léegi am combat incha allah. sama groupe whatsapp bi 100 pour cent bi ñoom Góor Fall gars yi yëpp ñoom Zonas Jib Joom ñoom Khady Sarr Ndeye Fatou gars yëpp daal maa leen di bége bu baax a baax a baax ñoom booy aliw ñoom Alsaan ñoom maalik xam di bége ñëpp di leen ziar bu baax a baax ñu wax di leen wax ñu gën a jàpp di gërëm sama gaay fee ñu may nekk Tivaouane Peulh ñoom Pape ñoom Yoro sama grand yooyu nga xamante ni damay dem din ya foofu toog fa lu yàgg nekk di entraîné ñu may jox may lekk di naan maa leen di bëggee bu baax baax di gërëm sama benn doomu ndey nag Fatou Mama waaw mu ngi nekk ba Kër Massar maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di gërëm sama yaay nag Mbaye ak Luma waaw kooku sama xarit la sama yaay la maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp daal waa Sandiara moom tam fàttewu ma leen waa Mboxodan fàttewu ma leen ñëpp daal tout monde entier maa ngi bëggee ñëpp di jaare ñëpp waa di gërëm sama yaay ay dëggee ah waaw moom tam su ma amee combat day jàpp ci togg yi bu baax a baax a baax affaire yi lu manqué mooy loolu dañ ciy jàpp bu baax a baax billaahi ñoom mère Torodo ñoom Siga ñoom Alimatu xam nga ñoom ñëpp ñoom day faatu di leen bëggee bu baax a baax a baax Pa Samba Seen ñoom Pape Seen ñoom Njaafa xam sama réglement bi <laughs> yee di ko bëggee bu baax a baax moom tamit bàyyi laat Moussa Dioum Noa gars yi daal ñoo nga xamante ne daal samay doomu ndey lañ daal su ma xëyee ñoom laay gis su ma gontee ñoom laay gis ko dëgg fa yàlla maa leen di bëggee bu baax a baax a baax ay gor lañ nag duñ jàpp di bàyyi Sëriñ Babacar Si nee na gor du jàpp di bàyyi maa ngi gërëm sama grand garga bu baax a baax nag sama doomu ndey la kooku billaay wallaay borom baax la maa ngi koy bëggee bu baax tout le temps daf may woo di ma nemmeeku ni nga ci loo ne ci loo ne affaire yooyu noonu acte bu rafet la quoi maa ngi koy bëggee bu baax a baax sama doomu day timtimal ah suñu entraîneur maam lees moom tam desul ginnaaw moom tam xam day ñëw di teg booy lu métti xam di sonn ci gaa yi ñoom Cheikh Nguer Paasañ ñëpp daal mën naa ne su ma limee damay juum parcelle mbooloo daal ñi ci kaw ba ñi suuf. uninga bëgg na ñëpp far bu jar di ko ñaanal dafa am combat ah. di ko ñaanal yàlla may ko ndam ak serpent noir di leen ñaanal ñoom ñëpp l'enfant noir keroog la bëre daan jël bu rëy moom tamit maa ngi koy félicité bu baax a baax waa di gërëm sama grand ak Malick lay bu baax a baax a baax suñu tons bu baax moom tamit wax dëgg fa yàlla maa ngi bëggee ñëpp daal wax dëgg fa yàlla kontaan naa trop. ak ummi soxna ma. bëgg na gépp oninga mu ngi leen di jëfal rawatina Parcelles Assainies gi nga xamante ni fii la fekk baax ndax wolof nee na foo dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga ko yóbb kon gërëm na képp koo xamante ni da koy jàppale wala jàppale woo ko sax mu ngi lay gërëm xale la boo xamante li tax